asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit ñi mbokki taalib yi mbokki lislaam bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen di ndokkeel di wax ne aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi din seen mbokk seen xarit Omar Karaw Niass bii nag mooy suma ñaareeli vidéo ma di ko wax ci mbir mii eh, li tax nag ñu di ko wax du pour xuloo wala pour saaga wala pour leneen te maa ngi ko jël ci sama responsabilité bopp en tant que Omar Karaw Niass sëti Alaaji Abdoulaye Niass sëti Alaaji Abdoulaye Niass nag su ñu waxee sa maam loo xam ne li ñu ko wax teguñ ko ci ay adilaaj yu wér mën nga dindi tuuma tuuma ji nag moo di lan mooy bëgguñ audio bi gudd dañuy wax bokk yépp yi ñuy seetaan ñi ci biir àddina yépp ñu xool ni wax ji nga xam ni sëriñ bu mag bi maam ju baax ji muy maam Seydi Hadji Malick mën dee lawaanu moo ko wax moo ko bind ñu dem ci ay téeram nettali li mu bind mu dind bépp tuuma dindi képp koo xam ne yaa ngi wax ay wax te dëppoowut ak li mag ñi bindoon ñu xam ne wax ci amul saxuwaay amul dëkkuwaay wax dafay am fu muy bàyyeekoo bu jóge ci bind walla mu jógee ci taarix bu wér ndax kat Seydi Alaaji Malik radiyallaahu am na wax joo xam ne moo ko bind téere bii ci yëm bind la bokk maam ko moo la gudd ko sax mi ngi tudd Kifaayatu Raaxibiin Seydi Alaaji moo ko bind téere bii nag ñu leen bëgg a waxtaanale mool bu bees baa ngi nii mool bu jëkk bi jotin ci mool bu bees baa ngi mooy ifhaamul munkiril jaani téere maam Seydi Hadji Ismaïl la dañ ko moolal muy mool bu bees bi téere bii mooy moolu mool bu njëkk ba ñu di ko wax ifhaamul munkiril bu ko defee ci loolu ci lañ leen di indil téere bii nga xam ne mool bii mooy mool bu njëkk ba a'uuzu billahi min ashaytaani rajim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñi ngi wax wax joo xam ne mi ngi nekk ci téereb maam Seydi Hadji Malick moom moo nettali boppam bindal boppam ci xalimbaak boppam te bind rek te tax mu ne wa mi man ajaazani fi tariqi aydan saydi suhurin xaasi والداني حامل لواء طريقة التجان أحمد ابن الحاج حاجي السكري mu ne Ahmed Sukayrij mu ne bokk na ci fi mu jëlee silsilaam bi ak ijaasaam bi ci kan la ko jëlee muy mbind mu bindoon yónnee ko Ahmed Sukayrij Ahmed Sukayrij moom moo ko jox lijaasa ci tariqa tijaan Ahmed Sikari ji mi nga xam ne moo yore keppaaru xam-xamu Cheikhu Tijaan mbiram Cheikhu Tijaan ci moom la nekk gannaaw bu ko ci sidna Cheikh jugee moom moo wax ne xaamilul liwaa'i tariqata tijaan képp koo xam ne nii moo yore raaya bi nga xam ne moo gàddu tariqa tijaan maam Seydi Hadj Malick mooy wax ba tey mu ne kooku mooy kan mu ne sukkee di jël mu ne jaalana jaala jaalana llaahu yàlla yàlla fayal ko wa iyaakum ñun mimman illaa durjil jannaati durjil jinaani mu bokk ci dëri aljanna yàlla faye ko cër bu yartaqi dana mu yëkkatiku ca kaweeg aljanna ya wa yarjo kama ajaasani mu ne ba ci ijaaza yim ko ijaazal ijaazal na ko fii jamihi taalifin Ahmed Sukayri Dieng taalif ciy téere ijaazal na ko suñu maam Seydi Hadji Malick kon kooku xam ijaaza boobu ci mu ne wa arsala mu yónnee xaaral mu yónnee ko ilaya jëm ci moom jëm ci maam Alaaji Malick kan la ko yónnee maha Alaaji Ibn Mouhamed maam Alaaji Abdoulaye Niass la yónni la Ahmed Sukayri ji mu ne wa arsala ilayya maha alhaaji Abdullahi ibnu Muhammad xurufan lu mu ko yónnee ay xaraf la ko jox ak i mbóot yóbbul ko fan ci jaar ci waawoon kon kay li tax maam Alaaji Abdoulaye Niass jaar ci waawoon maam Alaaji maam Seydi Hadj Ismaïl moo ko bindal boppam mu ne fa jasaahu llaahu anna xayra intiha xanaa wax ji lii maam alaaji Maalik moo ko bind ci téereem bi nga xam ne ifaamul munkiru jaani la moo ko ci bind téere bu njëkk ba nag ci la nekk nusxa bii nga xam ne moom lañ moo la nekkutuñ ci yër nañ ko nekkatu ci bu ko defee nag may wax ne mbir mi lu leer la lu leer la diggante Seydi Hadj Malick ak El Hadj Abdoulaye Niass seen diggante mësta ñaaw te li ko ñaawal mooy maa ngi sant di gërëm suma xarit suma mbokk suma doomu ndey Baye Niass ca Espagne yónnee na ma vidéo boo xam ne l'an 2010 la ko Cheikh Abdou Aziz defoon al amin waaye vidéo bi dafa bëri njuumte yu bëri yu ci nekk njuumte ya ca nekk mooy moom waxal na boppam ne maam El Hadj maam El Hadj Abdoulaye Niass bi demee Faas la dugg xalwa fukki fan ak juróom-ñaar loolu njuumte la kon yàlla ko yàlla yërëm te xare ko yàlla yokk leeram njuumte la ñaareel bi ci topp mu wax ne maam El Hadj Abdoulaye Niass ñëw na El Hadj ne ko danga may xidma ñetti weer loolu njuumte la ñaareel bi ci topp mooy tuuma ji ci raw moo di bi mu waxee maam alaaji Abdoulaye Niass bi mu waxee maam alaaji Malick mu ne ko olof ak morom ko du du ko nangu loolu tuuma la wérut amul dalil amul fuñ ko bind te amul askan te Cheikh Ibrahima Niass kenn la ci nettali bi sëñ Abdou Aziz Dabakh rahimahullah nettali nañ ko ci kanamam te mësu koo wax ndax amul aslu amul lu wér du lu wér sëñ Mansour si mi fi bàyyi koo mësu koo wax am ci te boo demee ca téere euh, Cheikh Ahmed Tidiane si al bi nga xam ne mooy al majhulul umma ma ngi ko fay nettali te nii la ko nettali nii maam Hadj Malick nettali ko kon nag mbir yi nañ ko leeral te yër yi bala ngaa wax nga yër téer yi leeralal ko nii lii moo ci li gën a am sol ñaareel bi ma ciy topp ma ñaareel bi ma ci wax mooy ñun sëti El Hadj Abdoulaye Niass lañ di waxee ci keppaaru El Hadj Abdoulaye Niass waxuma ci benn tariqa wala benn kër wala benn askan maa ngi wax ci El Hadj Abdoulaye Niass tuuma yii lañuy dindi lii moom la moom la maam maam Seydi Hadji Malick bind muy nusxa bu wér ñu moolaat ko dindi ko mi ngi nii muy téere bii lañ moolaat dindi ko ci li ma bëgg nag mooy sët yi nga xam ne ñu ngi dal ci Ahmed Khalifa Niass di wax Ahmed Khalifa Niass li mu wax lum juum juum juum kii li mu wax moo gën a rëy te moo gën a juum te ma xam la ñaar ci lislaam bi muy ñaari këri diini yii benn sët lépp loo wax Ahmed ak loo ko mën de wax ci lu ñaaw war nga koo mën a teg ci der sëñ Abdou Aziz Senior baat boo yëkkati teg ko ci derab Ahmed Khalifa xamal ne teguloo ko ci loxoom teguloo ko ci deram ci derab sëñ Abdou Aziz Senior nga ko teg parce que njuumte li moo ko indi yal ko yàlla yërëm am wax joo xam ne nii Ahmed Khalifa wax na ko li wax li ci gën a néew ci gën a néew mooy mbind maa ngi fi téere yaa na doy na fi yem te ngeen bàyyi Ahmed Khalifa Niass mi ngeen di kàlla kàllee Khalifa gi nga xam ne moom la nekk ci kër baayam tànk bi Abdou Aziz Senior taxawee ci kër maam Seydi Ismaïl moom la Ahmed Niass taxawee ci kër Mame El Hadj Abdoulaye li war ci Abdou Aziz Senghor moo war ci Ahmed Khalifa Niass ñoom ñaar li li Ahmed Niass lii maam El Hadj Malick nekkee maami Abdou Aziz noonu la nekkee maami Ahmed Niass ni maam El Hadj Abdoulaye Niass nekkee maami Ahmed Niass noonu la nekkee maami Abdou Aziz wax ju ñaaw ji nañ ko dakkal nañ bàyyi wax ju ñaaw kon képp koo xam ne yaa ngi yëkkati benn kàddu bu ñaaw man de duma saaga duma xaste nañ indi liñ bind li mag ñi bind tëral ko mu ne mu leer ndax baat bii mooy wa arsala ilaya maa alaaji abdoulaye ibnu muhammad hurufan jasahallahu ala xeyran lii du samay wax waxi maam alaaji maalik te wax jii nga xam ne nii moo fi nekk moo di nañ bàyyi tooñ Ahmed Niass Khalifa dañ ko tooñ kuñ tooñ fokk mu fayu fayu bi ëpp na wala ëpp waaye dañ ko tooñ mu fayu te Ahmed Niass Khalifa li mu wax euh, Pape Malick Sy mu wax ci audio bi moo gën a garaaw mu wax ci ci tamxarit bii passé moo gën a garaaw ndax moom ponki lislaam yi juróom la mu rotal ponkam lislaam muy xaj soofal ko lool ñàkkal ko fayda lool kenn waxut ci su ko xamañ ne su waxoon tey àddina bi tukki nag waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne maam El Hadj Abdoulaye Niass jurul kuy dajji ponki lislaam ponki julli juróom jurul ku koy dajji maa ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen wax ne na doy na fi yem na doy na wax ji jeex kilifa yi nag jóg leen ngeen dox lii leeral téere yi lii ba mu xewee ba léegi si Sy Mansour mi nga xam ne Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne mooy xalifa Tiwaawan lii am na ci masoliya parce que li tax mu am ci masoliya mooy xam na ne maam alaaji maam alaaji lii la bind na ko leeral nit ñi ndax ki ko fi bàyyi mooy Abdou Aziz Senior bi nga xam ne moo wax wax te wax ji amul ndëgër daay mag da kilifa dana juum xale dana juum mag dana juum bu juumee nañ ko jubbanti suñ ko jubbantee rafetal mag ñi li fi nekkoon waaye fekk jubbantiwuñ lii maslaa gi dana bëri waaye rafetoo gi mënta nekk te ñaari këri diine yii dañoo soxla ci dëgg nañ saxal dëgg te andi dëgg xarte dëgg lii mooy wax ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.